Fadal prévention routière di kuréel goo xam ne nii dafa juddoo ci dëkk bu sell bi ci Touba ngir daal di fàggandiku waaye itam di ñaax ñi nga xam ne ñoom ñooy chauffeur yi ñëw ci màggal Touba ñu daal di moytandiku lépp lu jëm ci accident yi kuréel googu ne nag ñu ko sos ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiru ak sëriñ Basiru Mbàkke Abdul Xaadir jamono ji njiit ñi di Modou Sall nay leer nag di fësal ne autoroute Ila Touba bilee bu kilifa yi jógut di ko tijji ci bu juróom-ñetti waxtu jotee ci suba ak di ko tëj tam bu 18 heures jotee mën naa indi ay jéey yu baree bari ndax jamono ji sëfër sa lañ koy daw jaaduwut te mën naa andi ay oto yu këpp waaw ci ndigalul euh, sëriñ Muntaxa Mbàkke ak sëriñ Bass Abdou mi organiser màggal gi ak euh, Serigne Cheikh Abdou Mbacke bi yor wàllu communication bi Fadal Prévention nu ñu daan waaje rek la ñu waajalaate màggal gi nga xam ni mooy ñëw ndax gis nañu ne màggal gi waxtu wu nekk buy ñëw dañ koy waajal waajtaay bu mucc ayib ci ndigalu Serigne bi donc matuwaay yu ñu jëloon rek jël nañ matuwaay yu ko ëpp ngir la amoon bañ amati donc ndax ci weer yi ñu weesu waxoon nañ ko waxoon nañ ko kilifa yi lu mel ni autoroute bi nga xam ne bëgg nañ ko ubbi waxoon nañ kilifa yi alerté woon nañ ni leen autoroute bi buñ ubbi nañ ubbi benn voie bi te nañ koy di ko tëj heure parce que bu ñu ko deful lu ñu doon bañ ci yeneen yoon yi rek mën na am ci autoroute moom njiitul Fadel prévention nay leer nag di yëkkati ay kàddu di fësal li nga xam ne mooy jumtukaay yi nga xam ne fas yéene nañ koo def ci màggal Touba. ngir benn accident du mën a am ci googule màggal comme ni ñu ko xamee woon daaw ay bakkan yu bëri daal di rot ci kaw tali bi. muy ñaax na kilifa yi matukaay la ñu war a jël ba kenn du ko benn accident ginnaaw bu ndimbalul yàlla wëyee. moom la ñuy ñaan te moom lañ bëgg am yaakaar nañ itam ci programme yi nga xamante ni Fadel prévention jël nañ ko proposition yi ñu def bu fekkente ni bii ñi nga xam ne ñoo yor kaaraange gi atteindre nañ proposition yooyu def ko yaakaar naa ni zéro accident mën naa am ba ca toppite mooy kilifa yi nañ jël ay matuwaay parce que gis nañ ne nawet bi am na yoon yu bari yoo xam ni ndox mi yàq na ko def na ci ay kàmb kàmb yooyu nag bu fekkee defaruñ ko bu buñ demee ba nga xam période màggal gi jot na oto yi teggi bi ñuy teggi mën nañu tax bu oto dawee ba egsi ci kàmb yi bu koy moytu mën na dal ci beneen oto te loolu mën na indi ay accident kon loolu war nañ ko defar aussi signalisation yi itam panneau signalisation yi ci tali yu bari bi ñu defee constat xam nañ ni panneau de signalisation yi manqué parce que doo ciy egsi doo ci nga egsi xam ne responsabilité kilifa ci biir gox bu sell bi Touba ak ci garage yi di taf ay affiche ngir daal di ñaax chauffeur si ñu daal daw ndànk dal ndànk waaye tamit daal di jëfandikoo code de la route dal Fallou. Fadal ci wàllu sensibilisation ni mu doon def ci wàllu affiche ci wàllu dem ci garage yi ci wàllu waxtaan ak mboolem ñi nga xam ne ñooy conducteurs yi danañ fas yéene defaat noonu pour sensibiliser leen lu jëm ci wàllu dem beeg dikk bi nan lañ mën a def ba buñ sonnee ñu noppalu fexe ba nga xëy ne du ñuy wuyu téléphone bu ñuy dawal fexe ba nga xëy itam bu la ñooy départ itam danañ def entretien ci seeni i lu jëm ci panneau yi lu jëm ci lumière yi stop yi yëpp ñu xool ko ba nga xamante ni danañ mën a ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm ñu ànd ak gunge leen ñuy ñaan ñi nga xam ne ñoo yor sécurité bi nañu fexe bay salonné yoon yi jël motards yi ñuy salonné yoon yi ci waxtu wu nekk 24 heures sur 24 parce que bu ñu ko defee rek danañ mën a gunge conducteurs yi ci yoon yi ba nga xamante ni bi képp koo xam ne jalgati nga code de la route ñu mën la gaare jàpp la teg la ay sanctions parce que du ñu bëgg itam aussi ñuy jalgati code de ci anam bu mel noonu ba nga xam ne dañuy lor ay bakkan parce que loolu rafetul jaaduwut lu mel noonu nag kon état bi am na ci responsabilité kaaraange gi am nañ ci responsabilité ñuy ñaan itam nañu fexe ba jël ay giri ñu jël leen pour yóbbu leen ci yoon yi nga xamante ni fenn fu nekk dañ fi wut check point ay giri yoo xamante fu oto paane giri bi dana mën a ñëw jël yëkkati oto boobu wàcce ko tali ba nga xam ne du gêner kenn parce que loolu buñ ko defee rek oto du paan taxaw ci tali oto da ci dal wala ngay dikk guddi di moytu oto bu taxaw ci tali ngay dal ci oto donc yooyu daal ñi ci ñi ngi euh, a insister pour ñu gën cee seet pexe waxoon nañ ko nag daaw waxaat nañ ko ren gën lañ lañ ko lancer wax